Sénégal lijjanti woon nañu ko ñi nga xam ne ñooy waa Pays-Bas dañ ñoo yoxosu ñaari bala maanaam ci fin temps bi journal bi nee na Sénégal dafa mujjee craqué Aliou Cissé ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na défaite bi maanaam moom la moom Aliou Cissé nee na défaite bi bu ko kenn jiñ kenn moom Aliou Cissé la ndax mooy entraîneur bu Sénégal ndax fii ci Sénégal maanaam match bu ñu ñàkk dañuy wax ne entraîneur bi la waaye nag football ci boppam da ngay dugal soo bëggee gagné te dugal amul ci match bi loolee moo tax mënuñoo gagné dinañu ko liggéeyaat dinañu ko travailler waat ndax football efficacité la waxi Aliou la yéen gi di Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu Cheikhou Kouyaté démb dafa daal di mujjee waaye nag def na match bu rëy guerrier la moom Cheikhou Kouyaté njiitu réew mi di président Macky Sall bi match bi jeexee moom ak Marème Faye Sall dañoo sol seenu dàll fekk gaynde yi ci vestiaire yi gaynde yi mer ba maara détaillé frustré Macky Sall ak Marème Faye Sall ak doomu Marème jii di Amadou ñoo doon defal gaynde yi maanaam di leen dàmp-dàmpal ak di leen di delloosi yéen kaay ko Wade waaye bés bu rëy la fa Karim Wade am ndax moom ak ñi nga xam ne ñooy supporters yi ñoo fa nekkoon maanaam di selfie kenn ku nekk lëng Karim Wade yéen gi di Source A dajee wut benn yoon ak Macky Sall te moo ne Macky ma nga diwaanu Qatar yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na Sénégal ni nga xam ne moom la commencé dara baaxu ci mauvais départ noonu la ko bi bindee ndax journal bi nee na bi ñu demee ba 84 minutes ci la nag militaire bu di di yow nga def ab centre Gbagbo koy teg ci bopp bi caax yi feesa bi ñu demee nag ba quatre-vingt-seizième moom di frappe koy génne da koy yàbbi ci biir noonu ci la ko kalak fekk daal jeexal mbir mi àggali liggéey bi terminer le travail la ko yéen a kaay ba tey ci biir journal bi ñu xëy fekk fa défenseur capitaine bu Pays-Bas di nag Virgil van Dijk moom nag nee na bi yombul benn yoon ci ñooma défenseur Pays-Bas bi di Ake moom nag fexe ba piège Sénégal ba gagné ko Alassane Ndour ci biir journal bi nee na bu gars yi découragé gu na ndax des na ñaari match Krépin Diatta nee na dañoo ñàkk match bi ci ay détails Nampalys Mendy nee na frustration bu mag jamono ji moo am ci biir vestiaire yi déception totale manque de concentration loole moo am ci mbir mi moom Nampalys Mendy mooy wax nee na manque de concentration dafa mujjee am ci biir équipe bi loole bokk na ci li tax ñu daal di ñàkk match bi ki nga xam ne mooy Krépin Diatta moom li mu wax leer na nee na ci ay détails la ko Sénégal ñàkkee Mbaye Diouf Dia journal bi nee na Sénégal nag bu ñàkkee li ko waral bokk na si ñaari blessé yi ndax ki nga xam ne mooy Kouyaté moo téewoon milieu terrain bi Abdou Diallo te li nga xam ne mooy latéral gauche bi ñoom ñaar bi ñu génnee si la équipe bi déstabilisé wu yéen kaay gi di évidence xëy di ñu xibaar naan ñu est du Yankhoba Diattara ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram moo jigul Sénégal maanaam ndax du mooy gaaf gi yéen kaay gi di source nee na loo ci mën di dégg daal maanaam defet la gis nga defet bi comprendre Aliou Cissé da nga dut i kaay gi ma ngi ci pression bu mag Aliou Cissé nee na defet bi nga xam ne équipe bi am na ko loolee mën naa gën a encouragé gën leen a wal fa jëree nee na Aliou Cissé yi nga xam ne tegoon na ko dara duxu ci dara baaxu ci jamono ji obligation la ci Sénégal ngir mu gañe Qatar gi mu war a laaleel ajjuma ju ñu dëgmal ak Équateur loolee obligation la Sénégal dafa nelaw ci match bi gars yoxu suñu daf ñu ñaari bal ci dara ci fin temps bi yéen kaay gi di enquête Aliou moom nag daat nay wax ne match yi nga xam ne moo ci des il faut ñu wane efficacité ak agressivité ba tey ci biir journal bi di enquête nee na Sénégal am na loo xam ne moo ko manqué ci lu jëm ci wàllum efficacité offensive bi jël bal bi teg ko ci milieu terrain bi pousse ko wuti kaaya lakk caaxi loolee ci boppam moom manqué équipe bi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu bras de fer bi ba léegi ñool ñool ji ma ngi am diggante ITV ak RTS ak Sénéra ndax journal bi nee na groupe média ñoom Mamadou Ibra Kane seen signal bi démb bu sénéra ko daal di coupé ndax dañ leen a waxoon na leen match su Sénégal bi bu leen ko laal bu leen ko jege bu leen ko teg bu leen teg dara ci li nga xam ne mooy coupe du monde bi ñi nga xam ne ñooy waa E-Media ñoom tam génne woon ab communiqué daan ne dogal boobee ñoom du ñu ko respecté seenub signal démb dañu ko coupé moo tax nag mbootaay gi ëmb patron de ñoom CDEPS ñoom tim ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yam signalu ITV e bi nga xam ne dañu ko daal di coupé yéene kaay gi di Le Quotidien nee na mbootaay yi démb réunion nañu nee nañu nag danañu dajee société civile bi danañu dajee ak représentation diplomatique yi nekk ci réew mi ci lu jëm ci mbiri Pape Alé Niang gars dañu ko bëgg internationaliser yéen kay gi dalee si ko nee na lu toll ci ay téeméeri téeméer ci ay nit ñoo jóge woon ci aéroport international Blaise Diagne bëgg a dem ca diwaanu New York waaye sonn gi ñu sonn ak mer mi nga xam ne mere nañu ko Air Sénégal fu ko waaye natt daan na koy passé ndax diggante samedi ak altine lu toll ci juróom benn yoon boo xam ne programme nañ seeni vol maanaam di ko programme di ko format di programme di format di programme di format loolee moo metti client yi nga xam ne ñoo bëggoon a jël Air Sénégal dem ca New lu ñu yëkkul Air Sénégal dañu ko fàtte yéene kaay gi di 24 heures xëy di ñu xibaar naan ñu Mame Mbaye Niang ministre bi ñu dénk wàllum tourisme démb ma ngi woon ci assemblée nationale ngir nag ñu daal di koy xaymal ab budget ma xayma nañ ko ci lu toll ci 8 milliards yu fegg 692 millions waaye lu jëm ci coowul 29 milliards yu Prodac yi démb waxtaane nañ ko ci assemblée nationale bëri na député ci opposition bi yoo xam ne joxar bi nañ si Mame Mbaye Niang baaraamu tuuma yi nga xam ne moom lañ ko doon tuumal ne daf koo daal di luubal pour IG e moo ko wane loole la Abbas Fall wax démb yéen kaay gi di 24 heures ak mandat ak enquête ñu xëy fekk fa Mambay ñaa muy tontu député yi nga xam ne ñoo koy tuumal ci lu jëm ci 29 milliards yu Prodac yi Mambay Niang nee na du dëgg te amul benn rapport boo xam ne daf ko daal di épinglé te loolee amul kenn koo xam ne mën na see génne preuve loole nag ay accusation gratuite la ay wax la joo xam ne tegewul fenn yàqkatu der yi te yéen ñii nga xam ne yéen a ngi koy wax jamono ji amul kenn koo xam ne mën na see génn ay preuve Abbas Fall ci biir